man di jot vidéo yu am solo yi bàyyi fii ci HDP religion da ngay bés fii ñu wax sabone boo noppee ñu teg ci kolos bi bismillah baax na maa ngi toll woon ci wóor gu mu wóor moom sëriñ ba mbooleem alal yi murid yi dajal di ko jox mu jàpp ne moomu ko alal sëriñ Tuubaa la ba sëriñ cee def dara ma doon wax ni euh, sëriñ Saliou jiite moom wax ne mook Saliou Ndiaye Touba kenn ci jëwriñ ñi ñoo ñëw ci kër sëñ bi di fi topp di ko topp dara nii ba mu ay fan mu woo ba ñëw mun leen lii ma leen di wax nag dama leen a bëgg a laabiire ndax yàgg ngeen fi lool di topp loo xam ne alal la koy lijjanti te mënta lijjanti te ngeen gis lépp di sotte ko daal di leen waaye nag sëriñ xam sa dey nekk ni ci kër gu mag gi lépp di toolu te cin du tàkk këram cin tekkul këram sëñ bi woo ko ba mu ñëw mu ko am sa de xanaa ndax na kër ga doy waar ak li nga gis muy sotti ko nii mu ne ko am ah, mu ne ko alal ji nga fi gis tey li muy bare bare tuuti laa ci sañ jëfandikoo te loolee ma ci sañ jëfandikoo laa bëgg nga di ko jëfandikoo yow mi sëriñ bi ne nag ba fi mu toll moo fi jógut lii fii sotti li muy bari bari tuuti laa ci sañ jëfandikoo te lama ma ci sañ ya jëfandikoo la bëgg sama daal iya yi di ci jëfandikoo comme ma ko saa yu jiite waxee mooy ko yeen yéen bi da leen dimbale ndax li leen leer mom dimbal dëgg lay doon ci kam ko leer waye bu dé dëggu njabootu Sëriñ Tuubaa xamuñ formalité dëgg képp lañ xam ag ci marché ba sax waxuma ñu doon sadiq mais siddiq lañ ndax yonent bi dafa nit du dañ di dëggu di natale ak dëgg ñu bind ko mu nekk siddiq siddiq nag mooy ki nga xamante ne melo dafa taqu ak moom dëkk ak moom dàkk bokkut ak saadiq mu doon jëmm ju am ak xereñ ci li muy def moom sëñ Saliou xikma li ñuy wax xikma xikma nag mooy mbir mu ne nga teg ko fam dëkk dugal ko fa mu dëkk daraan wax ni néew na ma teg nit fa mu nekkut ma teg nit fa nekkut lu natt ci nit ki rek ba ba teg ko fa rek loo wéré ci wéré wéré loolu la moo tax ay jamono mu ne ma dong yi dama bëgg nga waxtaan ma ñoom ni leen nañu woyofal seen loxo ci hôpital bi te bàyyee ko bëgg docteur yi bu baaxee ñu xam ne baax na bu baaxut it ñu xam loolu mel wa àdduna la àdduna baax dox na ba ma leen ko waxee ñu am ca ay nattable ci ni daal ñoom sëñ bi moo leen ni woon hôpital bi nañ ko jàppee ni daara lu ñu fi gis mu di defar ñu defaral ko léegi ba ñëwee ci si mën den léegi lu ñu ñëw ni ma dañoo bëgg ñëw si kër pour ñu waxtaan ci mbiri hôpital bi man hôpital bi sëñ bi ne woon ngeen génn si ñun ma déet ñoo waxoon leen sëñ bi ngeen génn ci man leen sëñ bi li ma wax mooy ngeen woyofal ci seen loxo waaye man li ma jàpp mooy daf bëgg ngeen génn ci ñun ma ñun déggawuñ ci loolu sëñ bi ñu génn dina leer ma ànd ak ñoom ci sëñ bi leeral ko ko ne ko ñoom kat leeral naa leen ko waaye wax nañu dañu ci bëggoon ak leer ndax nee nañu hôpital bi yàlla waxoon ne nañ ko jàppee ne euh, seen daara yi luñ ci gis mooy defar ñu defar ko ba tax na ci biir loolu wutoon nañu lu ñuy tuddee commité de santé ma ne ko comité sant mi tamit moom mbooloo moo xam dañu doon diggante docteur yi ak donge lu jaaxal ñii ca ñee ñu lijjanti ko lu jaaxal ñee ci ñii ñu lijjanti ko dañoo xam boo xam dañuy bàyyam di ba ñu waxee sëñ bi sëñ bi ni leen kon te ngeen dem rek naa ci génn kon ngeen seetlu ngeen def ñu ne ko déet loo génn sax du baax waaye nag dañu bëggoon daal nga jox ndigal ci ñu liggéey rek sëñ bi dem bañ demee di dem dem ba ci cat la ndaw sa kilifa gi jiite lool daa mu téléphone ko ni ko damaa dégg ñun sëñ bi dafa yable ci ministère bi ne nee leen ministère bi hôpital Touba ko bii na ci tay ndax saw mbirum bopp la donc yooyu fa ñëwoon di fa wax defloo ma leen fa dara bañ demee ba ci sëñ bi laaj ko ko sëñ bi ni leen maa ko wax ndax damaa dégg ñu ni da ngeen a dem fee dafa wuti ab médecin boo xam ne nangam naa te loolu waaye muy ne la ma jubloo wax rek mooy lépp lu mu jubloo joxañ ni la mu jëkk joxañ ni ni la loola lu mu yàgg-yàgg foofu la nekk bu loo ko wéri wéri foofu detaat moo tax sëriñ Cheikh si daanaka wax ne sëñ bi de ku ko xam lu mu jëkk a joxañ rek ca loola ngay nekk ndax lu lu yàgg-yàgg foofu la detaat ndax la mu nattal boppam ba gis loolu la loolu képp lay mën nekk waaye yërmande ju yaatu ji mu amoon benn bés dama ko wax ni ko man de dama la yërëm lool ci coono yu bari mu ne ma sàllaaw yërmande juñ am ci man rek de lu ko ëpp am naa ko ci nit ñi daal ni ma saabu ma ne ni ñëpp génn de bu ma leen xoolee ñuy cumaaytu ci taatu miir yi dama leen yërëm ba sama ronko ngi bëgg a tóor ndax xam naa ne fañ jógee ni mu soree ak liñ daj ba ak si fii te lépp Sëñ Tuubaa jaral leen ko te wóor na ma lu mu leen jaral rek lu mu leen jaral rek war na ma jaral ko am ñaari xale yu doon yoo xam dañuy siyaar ñoo bu jub ko am ku leen got dogal naan ay eh, gone yi topp leen topp waaye sëñ ca saas la fab kaala gi teg ko ci bët yi daal tàmbalee sotti ay rankooñ ngir yërëm ne daan xool gone yi di leen yërëm ba àgg ci di joxe ci waaye nag teewlu lépp nag mu xam ne lii mu leen def loolu mooy liggéey ñoom kon yërmande day ay xeet yërëm nit ki lu tee nga lay dëgg dëgg yërmaan sax mooy nga sóob ko ci lu koy jëriñ ak lu métti métti bokkut ak yërmaande jigéen mooy ne léegi damaa yaram xale bi rek ba bu dee jàng du jàng bu dee kopp kopp rek bàyyi mu nelaw déedéet siñ bi yërmaandeem dëgg-dëgg mooy sóob la ci lu lay amal njëriñ tey gale bu dee ak muñ ab yamukaay la ci ndax mën a muñ ku mënta muñ doo dajale mbooloo nit di liggéey ci ñoom sëñ Abdou Lahad daan wax ni jaamu yàlla ak topp yàlla ak liggéeyal yàlla bokkuñ jaamu yàlla benn boo ci def suñu borom daan la ci fay fukk man jaa bil hasanati falahu ashru amsaaliha topp yàlla nag mooy naafile yi ngay def ginnaaw boo defee farate yi benn boo ci def ma ne la koo fay ba juróom-ñaar téeméer daal di wax ni moo waral suñu borom andi jasaaw ak sawaabu ak ajru jasaaw ak sawaabu ak ajru ñett yooyu moo ko waral jaamu yàlla ak topp yàlla ak liggéey yàlla daal ni sawaabu mooy sawabu rek nit ki buy def ay nawaafil ba suñu jox ko ab cër ab cër ci nguur gi mooy waral lépp lu mu bëgg mu am lépp lu mu bëgg a dañal mu dañ kon sawaab mooy saw bu ab mbubb la muñ la solal ci mbubbi suñu borom daal di wax ni waaye liggéeyal yàlla na ci nit ñi lañ koy def ndax nit ak ni mu jafee jaxasoo nga jaxasoog ñoom di leen làddanti di leen woon yoon wu leen di jariñ lañu lay lor nga di ko muñ lool la ca sondoon du fay du ko natt ci fukk mbaa juróom-ñaar téeméer waaye daf koy natt ci innamaa yuwaffa saabiruuna ajrahum bi xayri hisaab waaw daal di ñii muñ moom bu leen sondoon du fay du ko natt du ko natt sëriñ bi daana mar sëñ Saliou ci ak mën a muñu daana mar ba ba jàpp dafa sibaru ginnaaw bu ñu ko joxee ndox ba mu naan naan man damaa jàpp damaa sibaru rek damaa maroon rek day mar ba fàtte dafa dafa dafa dafa naan dafa fàtte benn bés ma jógee ci tool yi ñëw fi mu ne ma yéen nga fay muñ rek noonu la wax ak man ma ne ko ah, fi mu toll de noo ngi bëgg ak ci marta ba sant bu wér a wér nag ma noonu noo ngi leen di sant waaye yéen ni ngeen def la def metti lool noonu la ko waaw waaye nag bu dee culture bu yaatu culture culture bu yaatu dafa moom laa jëkk dégg muy wax ak sëñ Moustapha am sëñ ci genn guddi di ko wax ne ko Istanbul Istanbul la ne ko bool mooy Madina ci laa ko tekki loolu laa ko dégg ne bool dëkk bu ci laa laa jëkk a dégg loolu Istanbul Istanbul la bool mooy Madina ci laa ko tekki benn bi sit damaa jóge ci tool yi ñëw mu di ma laaj euh, mbay ma muy quoi mu ni ma léegi mu ni ma gerte dana am fu mu toll foo xam ni mën naa am fukki fan yoo xam ni jamono bu day gën diis waaye nag fukki fan yooyu bu xasee mat bis bu mu ci doon rek day gën di wàññi ko poids bi mën naa wàññi ko ba àgg ci saako bu ne manqué ñaari kilo ni ma loolu de xanaa doo xam ma ne ko loolu tey jii laa mos dégg <laughs> mu ne ba mu ci andoon ak gooñ dama wax la ci leer ba ci andoon ak gooñ ma wax la ci leer Euh, woote nañ ne culture bi foo ko takk rek weesu. ci hmm. culture bu yaatu bi dafa am ci dongo yi koo xam ne dafa dem ànd ak ay gone ñu luubal bañ jàpp ko yóbbu ko police am ku ma téléphone ni ma kenn ci seen dongo dongo yi tubaaxee ko mi ngi police ma yabal ndaw ni ko demal gëstu ma ba xam lu ko fa bàyyi ba mu demee police ñu ne ko dafa am góor gu jóge woon ca waalo bàyyi woon ba dëpp yore ab saag ñetti xale topp ko ba mu nelaw ñu sàcc saag ba te fukki junni la amul ñu sàccale fukki junni yooyu góor gi ne dafa ñëw fii ci police bi déclaré ko fi ñu boole ko benn agent ni ko da dem ca moquette boo gisee kenn ci ñetti xale yooyu boo ko waxee police bi dina ko jàpp fa yàlla dogal góor gi mu mu demee ba ba ca makil ba ñu xool rek mu gis kenn ku ca bokk ci gone mu gis sax mu yor mel ni boobu ca mbubb muy preuve bu ñu jàpp ko euh, kooku inspecteur bi daal ne ko léegi euh, ñooñu nag ñoo xale bii ñu ne xel ko lu ne ko daal ne ko sax damaa xamutoon sax ne ci gone xel ko la bokk ni kon sax dama ko téewal waaye nag bind naa li muy bind ba jàll na tribunal bu noppi daal di joxe xalaatam daal ne ko léegi da ngay def mooy dangay ngay wax ku mel ni Moussa Niang wala Saliou Diakhaté ñu wax sëñ bi Euh, ñu ñu téléphoné procureur euh, leeral moom pour mën ci def ak woyafal noonu la waxee kooku ñu waxee ma ko noonu ma itam ci lu dul ma ci xalaat benn xalaat ma ma appliqué loolu téléphone Moussa Dieng mu ma ah affaire Sadio def def def daal ni ma Saal Jaxate moo ngi ci sëñ ba te sëñ bi lu ne am na ci xalaat li ngay def mooy wax ko Saal Jaxate moo xale ko sëñ ma téléphone Saal Jaxate mu ni ma sëñ bi su ma ko waxee lam cee soxla ci ay gëstu du comme yaa ngi ci dëkk bi ñëw. maag sëñ bi rek fi nekk ma ñëw ci sëñ bi leeral ko sëñ bi ni ma foofa day def ku fay dugg la la fa dugal dañ koy bind ku fay génn la la fay génn dañ koy bind bu fa duggee ci lu mel noonu yi ba noppi ñu génne ko ci lu mel day mel ni lam nekk bi mu ko waxee laa nit lay dafa mel ni ma ne kulbét rek dama mel ni kuy nelaw dañu ma ku fay dugg la lay dugal la la fay dugal dañ koy bind boo fay génn la la fay génn dañ koy bind bu fa duggee ci lu mel noonu yi ba noppi ñuy génnee ko fa day mel dañ ko far ci lu mel daal di ma léegi yaay seet no seetal rek baax waaye nag bi mu xasee dugg noppam rek ak jàpp jàppandal am na ca ndax bàyyam téléphone ne ma ne ma ne ma damaa dégg ñun sama doom moo ngi ci tribunal ba ñu war ko àttim si léegi damaa xamul ko ma ne ko daal dafa ànd nag ay gone ñu jël alal jàmbur ba ñu leen fa te sëñ bi nag nam mu yëlee fee sa doom ji la yëlee fee ba tax du ci mën a faral kii léegi da fay dem ba xam rek mu dem fa waaye rek ñu def ci ak jàppandal ak mu weef tooy nag xam naa dégg sëñ bi dugg gi mu dugg si ñoom def na ci ak weef waaye loolu lépp nag pour wax la culture am bu yaatu moom sëriñ bi bu dee nag yaatu rëy itte itte ju rëy lu mu doon rek dafa tuuti ci moom loolu moo waral quarante cinq mille hectares yi xel ko jëkk ñu di ko jox gouvernement bi dafa yebal ay ndaw ñu ñëw ni ko daañu la jox suuf si nga doon laaj euh, la jox lu toll ci ñetti junni hectares ñetti junni hectares de Ken du ñaan di tam waye sama ben dara kep ëpp na ko ñu ko xana ah, da nga xam ñet junni ak tam ñu xam naa ko du mo yaat na nga guddi naa ñu ko am sama ben dara kep ëpp ko ñu ko ah, sax mu leen ñaar fukki junni ak juróom-ñett daal ko naan ba <laughs> ñu ne si suñ da xana daa xamul li ñaar fukki junni ak taam juróom-ñett fi ko am ci senegal mu leen xam fu mu am ta dana dess ñu ko fan la mu leen bu ngeen demee ba rëcc ci jaabir jëm bege bay jëm jëm ca boor doli jëm barab sànq fofu xajna fa ci dana dess noonu lañ ko joxe suuf waaye bi ñu ko joxee téewul rek mu tuuti ci moom moo tax mu mu sàkkoo ñu dolli ci dolli googu loolu mooy itte ju kawe bu dee connexion ak yàlla Serigne Saliou fu mu toll mu ngi jàngal xuraan fu mu toll mu ngi jàng mu gis muy jàng ba àgg ci béréb sax di jooy yow yow mi doon nit kese boo doon jàng ba àgg si yow doo jooy ndax doo xam lu lu muy jooy waaw waaye moom lu yëg-yëg ba mu ciy yëg lim daan wërd ak di julli xam naa ay jamono ci euh, jamono bi may nekk njurul 83 li ñuy wax salaatu tasbih di cee waayoon dégg di ko saxaloon dàkk nii diggante si wàllu sax waaye ci biir biir jaamu yàlla googu mu boole ci ak yëg yàlla ak it euh, lu mu rek mu am cee mu gis ci yàlla ca saasi ci misaal damaa jógee ci tool yi ñëw mu ne ma nu tool yi def ma ne ko tool yi daal bi muy doog a tàmbali moom amoon na ak rafet waaye dañuy dem ba ci biir nag lu mel ni mbenaat moo ci dugg. mun ma waaye nag li ci suñu borom dogal rek ci daal di ma ndax euh, lool te sant yeeg sant yi te ci war sant ci war it nag ndax dafa mel ni moo gën a woyof ci nattu yi suñu bi muy lim nattu yi euh, wal na wal nakum bi shay min wal juu'i wa naqsi min al amwaali wal anfusi wa samaraat da mujje ni ma suñu borom mu ne dinaa leen nattu faaw dinaa leen nattu ci ab xiif akuk ragal ak manquiteg al ak bakkan ni la mujje muy manquiteg ay meñet comme gina bu mujjé mo ci gëna a mo lañ tek dañu wara sax lool moy yek yek yëg yek yalla ci man yek yalla googu batay tey kër kër ji bari ñoo ñuy seede am ko ni way def leen tank tàngoor da met ci ngeen sëñ bi ne sala jël jambat ndax bu bu neexon su borom ma bok ci ñi di rak kon jël jambat lool moy ak dund yalla diko yek fotol diko baye sa laa jërul bu dee toroxlu gi mu toroxlu woon ak lewet gi toroxlu gi moom dafaan feeñ ci day feeñ ci colug boppam di feeñ ci li muy jëfandikoo di feeñ ci ay waxam di feeñ ci ay jëflanteem yëpp ak toroxlu ci feeñal xamee wutoon ci ab jëflanteem diggante borom doole jee ki ko néewle mbaa ko am alal ku amul alal mbaa gone mag gone déedéet ba ci ba ci gone buy jëflanteeg moom jëflanteeg magum jëmm li jëflanteeg moom te daf koy warmaal néew na sax muy sàllalu nit lu ci ëpp sëñ diw lay gi ak mën a muñ gi day mel ni yonente yu mag yi rek nga ko ci mën a ndax luy nuru doole du ko jëfandikoo doole doole suñu borom daf koy dénk nit ki ngir bëgg mu teg ko nii ñu xam doole jàng waaye bëggul ko ko jëfandikoo sëñ Saliou dawul jëfandikoo doole ci dara ci dara ñaw xel gi benn bëkk ne ku sasoon ci sëñ Saliou nee na ma sëñ Saliou nee na ko sëñ Saliou de diib gépp xel mu ëpp la xel mee ko wër nii bala mooy def dara dina ko natt natt ko natt ko natt ko ba ba far ko bàyyi diib gépp xel mu ëpp benn bis mu di ma laaj dara ma ne ko man de lii laa ci xam waxuñ ñaari baat man ma loolu nga ma ci wax la jël naa ko ci xamante loolu nga ma jot a baax naa bu dee dëddu gi akuk sàmmante dëddu àdduna ak Serigne Saliou na boo xoolee col gi rek sa nga gi ndax di sotti ko ba nga sol col gu tilim waaye cofeel gi ñu jaam ci moom rek. mooy dalilu bëgg dalilu dëddu àdduna ndax yonent bi sansun dafa am ko walaaj ne ko nan laay def ba yàlla bëgg ma nit ñi bëgg ma mu ne ko ishad fi dunya yuhibbaka allah wa ishad fi ma inda annaas yuhibbaka annaas bu bëgg yàlla bëgg la da ngay dëddu àdduna bu bëggee nit ñi bëgg la lañ yor da nga leen koy dëddul da nga leen koy bàyyi waaye dem ba denc dix milliards soppiwoo la nga daan sol soppiwoo fa nga daan tëdd lalu campagne bu tuuti ñu lal ci ambaaj ci la daan tëdd lalu campagne bu tuuti ñu lal ci ambaaj ci la daan tëdd muy fanaan ci am mbaar ci am mbaar ci ci mbaar bi lay fanaan loolu bu ñu doon wër ku dëddu àdduna ba ak si yoom dañuy taxaw mu doon kuy sant yàlla cant ku sax dàkk sant ku sax dàkk fu mu toll day sant ba benn bis ñu màggal ba noppi ma ñëw di siyaare si dajeeg benn murit mu ne ma damaa bëgg daal nga jot leen ma sëñ bi sama cant ndax xam naa ne màggal gi neex na fépp waaye sama kër la dàq na boo ñëwee ni sëñ man kat damaa dajeeg ay murid ñu may jot lu ak cant ci yow waaye dama leen nag bala maa jot li genn cant sama cant boobu laa jëkk ma kon de sama biiru cant sag cant ko ci sama bu duggee si biiru cant baax waaye nag noonu la yëgee woon li mu nekk xam ko ndax benn bi bis dañoo nettali ne Sëriñ Tuubaa daan wax ni lii ngeen may jox ma di ko nangu di bu leen jàpp ne damaa ñeme bor ñeme ma bor damaa am pay ba mu ko waxe ma ne ko ndokk bi ko dege ci xana bop naa ne bopp la jëloo jublu waaye daf ko jaaree ci xis mu xamit lim nek tarbiya ndax tarbiya ba nga xam tarbiya dañuy wax ni ki yar na xam bu sonné téeméer ben résultat day am bu mu ko xeeb bo boo do xeebee doo jar moo sëñ bi daan wax ni kenn nit ku defaru jar na dajale téeméeri nit kenn ku defaru jar na dajale téeméeri nit kon wëlëru doomu aadama mi ngi feeñ ci lim liggéeyal diine ji liggéeyal ko société bi sëriñ Saliou liggéeyal sëriñ Touba ci njabootu bopp mi doomi bopp mi liggéeyal ko ba ci sëddi ba ci mujjug euh, mujjug euh, ba ci ak mujjam moom addee jëm daan jox doomi sëriñ Touba daf ko doon jox ñeneen fi nekkal bayu soppiwu ci dara liggéeyal mboolem murid ndax liggéeyal bi mooy mboolem li ñu ko koo teg ne xool fu ko war a loo xam ne intérêt moo tax am na ko ku ñu wax ne dafa wax ne sëñ bi daa jekk sëñ bi jekk googu ne yëguma ko sama bopp xaj naa alal sëñ yi ñu fi dajal la jàppe la jàppe jekk te sëñ ma ci def lu ma xool ba gis ne xooli murid yëpp ànd nañ kon liggéeyal na murid yi ci dajaleel leen ko dugaleel leen ko foo xamante ne bu buñ ko dee anam mun leen mu ngi ni mu doon luñ mënutoon ñàkk te mënuñ ko defee seen bopp waaye jullit yëpp liggéeyal na leen ndax barina ko fa ñëw di lijeenti lu melni jàkka ju tabax mu taa àgg sëñ bi yëkkati ab jox ko boo xam bu démé duñ ko waxati kenn legi nak ab kat bu ne da nga yar ba noppi ñu gis ci biir yar ba am mbellit mu kenn mënta lijeenti ndax loolu dañ naan legi dali bu sëñ bi def wala wala wala wala xale bala wala yàlla la dafa am benn way kat xam ne إذا المرء إذا المرء لم يقلق سعيدا من الأزل فخاب الذي ربى وخاب المؤمل نيت كي كتبفك شنبرم بنكون بياق موي سعيد كي يردن السنو لكن جون ياكار درسنا دالني فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل موسى مي Moussa Samiri Jibril moo ko yar muy ab yéefar Moussa Ibnu Imraan Firaana moo ko yar mu nekk ab yonent kon da ci am loo xamante ni foofu lañ koy xool mbirum suñu borom la moo tax am na benn xale boo xam ne damaa ñëw dajale waat daal jëpp ni damaa bëgg nag léegi bu fi kenn taxawaalooti ndax taxawaale ko dañuy yàqal ñi jàng dañ ñëpp jàng xale bu féeteerlu woon ma boole ko benn seen daara bu ko gën a féeteerlu foofu mu ñëw ni ma du ma jàng ci réew ma ne ko lu jàng dama ci jàng rek ma ne ko ma ne ko moo lay jàng ci force mu wàtt yàlla ne ma barke suñu tool dama jàng ma ne ko gis nga boo jàngul dinaa la dóor ba fii laa yeew ci digg daal bëgg dem ma génne daal daal ne tekk di ko seetaan mu jàng mu jékki ne ma jox dem di ko nettali sëñ bi sëñ bi ne waaw wala wax ñaar bu ñu xëccoo ba mu teen ku jëkk bàyyi ka ca daal ma ne ko dama te xamul ba dinaa ko def ko def waaye ma ko bàyyi daa jékki ñëw laa yëpp téere wax ne ñaar bu ñu xëccoo ba mu teng ku jëkk bàyyi rek ka ca daal waaw nit it ñëw ni ma léegi man kat sama doom ji dama ko téléphone fan yi waaye ni ma waxee ak man daal euh, dama bëggoon defaraat ay këyitam man këyit yu mel nan bala wax leerul kam àndal ni ma kii doom ji daf ko yóbboon ci école ba jàng école daan taxawal moo indi ko ci daara ji bi ma waxee ak moom nag jàpp na ne xel mi lees ne bu ko ku defaraat këyit di yóbbu ko ci école dina mën a jàll man ko àndal ah, jub la wax <laughs> man wax ko sëñ bi sëñ bi waaw ñoom de ñu bari ci nit ñi dañoo jàpp ne daara moom ab kaso la rek dañuy wax seen doom su ne ko boo nangu jàng dama yóbbu ci dara jël boo nangu jàng bi boo ngay for li fi tun boo nangu jàng dama lay yóbbu ci dara benn bis ma ne ko dong yi di ñu ngi sant bu baax ci ceeb bi fekk dong yi sëñ bi daa jënd ceeb bare bare ñuy waxante ci seen biir sëñ bi neena daa bëgg dong dundub dong yi mel dundub nit ñi ndax dem bari wàññi ko ma ñëw dong yi di ngi sant bu baax ci ceeb bi nga jënd mu ne ma sa la tegu ko ci bakkan dara de na la waxee asaka jii ma daan séddale te su ma ko séddalee mën naa am ñi jot ñi diñ jot moom laa jëndee ab ceeb te xam naa bu ma leen ko jëndee dana leen dana leen te sëriñ bi daana fa asaka yi donge yi tarbiyewu di leen ko dundale te lu mu def ci yoon bi aw yoon la ci la yoon aw yoon la ni ma waaye nag foofu ka foofu képp lu dëdd nag saa tegu ci logique xeetu tarbiya sëriñ bi mooy ñaareelu tomb bi nu mu daan tarbiya moy façon bi serigne touba dan tarbiya moy bihde ayali li bukay moy jubalal njabot gi te joy du am te duñ len duma mom la serigne bay jaxati wax serigne ko sa baye gën ñep tabiyar dong dong la yor yoral yaram ba te gis de ko sant ak yar sa baye gën ñep ab yar ngir joxe jox ab ba ngay am am ab yar te Biar mas bi yëkëti yëkkati yar tek nit waye mo gënu nit ñay tek nitub yar ak ay ak motax tax sëñ bi daan wax sëñ Saliou daan wax dong yu mag yi ni len gone yi di len yar ci Pastef ta bañ len yar ci ak notaire ndax ak notaire li muy yàq li muy defar mu melni kon li ndam moy nga fexé ba sax njaboot bëgg la mo gën nga fexé bañu ragal la ndax njaboot gi bo len mëna dé lepp di len dundal di len woddu di len nangam pour ñu ragal la lu yomb la waye le gën nak mooy nga fexe bañ bëgg la moo gën a judd ragal façon yarin ni mu yéeme la jàngale foofu ci ni nit ki mu fexe bañ bëgg ko moo gën mu fexe bañ di ko ragal gone gu ñu ko indil la muy jëkk a lijjanti mooy dalay xamal sa bopp yow ci yéen bopp nag doo laa xamal yàlla doo laa xamal bopp nan lay xamale sa bopp sa wëlóoru bopp la lay xamal ndax saa bu ñu ne gone gan la ñuy joxe gone gan lañ ñëw di ko jëbale si nii sëñ bi day arrêté li mu def lépp ba gone gan googu ba noppi lu muy bu duggee ci biir gone gan yooyu lay jëkk bu demee ba ba añ jot ñoom lay jëkk bu reer jot ñoom lay jëkk laaj buy fanaan day fanaan ñoom bu xëyee buy ndekkee ñoom lay jëkk laaj ñoom gone gan yooyu danañ leen jox seen wëlaal bañ xam ni ñu wëlooree mu doon leen jàngal lu mu leen di it mooy ni liggéey bi la ak yar bi ak njàng mi ku ci mën a boole liggéey bi ak njàng mi mooy diggante ku mënta liggéey te nangoo jàng bay leen ko mu jàng ku mënta jàng te nangoo liggéey nañ ko bàyyi mu liggéey ku ci nanguwul benn te nangoo fee ko bàyyi mu toog fi kama jaaxal nangoo toog lañ bëgg ci am danañ ko ma dund ko ndax am na ca mag ña koo xam ne dañ ne ma kii ko bañoon jàng la ma jox ko radiateur oto ni ko yóbbul ma ko mbàkke yëkkati cinq mille francs jox ko ni ko boo demee na nga ci paas aller retour te jox ci te neexal ci ka ko yoon defar mu dem defar radiateur bi indilaat ma cinq bi jox ma ne ko dara mu ne ma bi may dem damaa am ku ma yóbbu bi ma ñëw damaa am ku ma indaale ka koy defaree fa yóbbu ma dara ma ne ah dina li sëñ bi doon wax ni ku fi yàgg liñ bëgg ci am danañ danañ ko am ndax kii nanguwutoon jàng nanguwut dara waaye jikko ji bari na ko jàng bu jeexatee te mënu ko am jikko ji li ma daan wax ni li ma waxoon léegi ni tarbiya mooy li denc li suñu borom dëxañooñ ci nit ki ci ay melokaan nga génnee ko sëriñ bi daan misaal fànnu tarbiya di leen wax ne tarbiya gii lépp lu ñu leen def la ci biir daara ji rek ci la bokk te yi ci bokk ñi loo ci bàyyi rek boo génnee danga xam ne bàyyi woon nga booba booy booy génn muy manqué nde mi ngi mel ni kuy tàngal ataay kuy tàngal ataay da nga am warga ak suukar waaye boo amee war ak suukar te amoo ay xal ndax dina jaata ñu ko déet mu ne boo amee warga ak suukar rek xal te boo te amoo برادة بوكا داف نيو ديت مو بو امي وارغا سوكر اك برادة بي تامو نخ نك بو امي ييب تامو تامو تامو اي كاس يوك خيل ني لا نك ني لا ديم تربيه جي ليپ لو نين تي ديغال نيغا خام جي لا بوك بو تي باي رك بو گينم فنچو مات كومبليت كوكو لدان جانغلي تي والو تربيه نيت يارام لا اك رو اكون خيل نيت ييب سيغ بي انديو نو كي بير تربيه جي نخ amna sasu khassida wuñu wax sasu khassida moy representer dundu roh sasu xam-xam am na fu muy représenté dund xam-xam dund yaram la ko représenté mooy liggéey baa nga ne muy matériel bu leer ak jëwriñ ñu la ci génne kon ñett yëpp lañ daan boole foofu yi ci daal di sëñ Saliou ngir dund ko bu koy fee nag ci biir tarbiya gi amul Masamba ak Mademba amul ko sant men wenn sant loolu xamewuñu ci biir tarbiya gi nit ñuy def bu añ jotee ñu añandoo bu reer jotee ñu bu julli jotee ñu jullandoo bu liggéey jotee dañuy liggéeyandoo lépp ñëpp ànd liggéey noonu la Sëñ Tuubaa daan tarbiya sëñ bu baa ñëw ci dara boo ko defee nag bu ñu demee nag bu ñu demee nga xam ne yéen a bokk lépp ba kenn ku ne lu nuru ak rëy mbaa maa gën a kenn lenn dañ ci yow bu boobaa nag lu nit rawee moroomam na ñu wan ko ko nekk boo ko ëppee xam-xam yaa ko ëpp xam-xam boo ko ëppee euh, alxuraan yaa ko ëpp alxuraan bu boobaa loolu dana feeñ waaye nag biir liggéey moom da dem ba doo yëg sa bopp moom itam kenn doo yëg sa bopp ci dara loolu mooy ñu Sëñ Tuubaa daan def bu ba seexal nit jiital ko seex boobee du yëg boppam ci dara ndax fekk na mu dindi yooyu yëpp ci moom mu doon ko tafal mbooloo mooy fee nag dina wut ko leen di jàngal xam-xam am na kenn koo xam daf ko laaj ni ko yaa ngi jàng ba mu ne waaw mu ne ko déet sëñ ba sax laa koy laaj daal ne mu ngi jàng mu ne ko waaw mu daal ni ko góorgóorlu ci di baax ndax laxas jàngi yomb na waaye nag di tarbiyawu ñu jox la ndigalu jàng xam-xam mooy di jafe te ginnaaw da ngay tarbiyawu da nga ñëw tarbiyawu bu ñu jox la ndigalu jàng booy jàng sax yaa ngi ñuy toppante di wax ni yoonu murid yoonu toppante la yoonu toppante la yoonu toppante la maam léegi yow mi ki jiitu doon sa jëwriñ na nga topp ci ginnaaw bu jomee moo joom yow lañ la digal mooy nga topp ko na ko topp bu jomee moo moo joom waaye yow jomoo mbaa guddeegul loolu guddiwut hmm. mu nose woon daara ji nos bu yéeme nos bu yéeme ndax dani ma dani ma daara jot si limu li mu bu dale ko ñett laa fa bëgg li mu surtu bàqara mooy eh, mi ataani wa xam suñu wa samaana deux cent quatre-vingt-cinq mu ne bu doole ko ñett mooy 288 mu ne ma buñ ci doolee sëñ daara yi ak jigéen ñi ba mu àgg ñetti téeméer ak fukki ñett na taxaw foofu nii la waxee man ma dem calculer gis ni ñaar fukki néeg ak ñeent la tabax euh, mu ne ma sëñ daara yi ak jigéen ñi tabaxaale gu ma leen dama leen a tabax ci wetu ndijoor gi daal di ma néeg yëpp dong yow tax ñaar ak fukki jigéen ak ñaar ak benn jàngale ko tax mooy 313 lépp daf ko plan ba teg ko 313 mu doon nos bu yéeme boo xam ni day am jëwriñ ci daara ji jëwriñ ju mag yoo xam ne yëf daal jëpp néeg bu ne day am jëwriñ jëwriñ jooju day am topp jëwriñ topp boobu am toppaat jëwriñ noonu la ñu organisé gone yi ba ka ci gën a doon gone sax am na lu war a liggéey ku ne rek am na loo war a def façon nos boobu mu dañ ko war di jàng jël ko jëru sax ñu koy jéggi jéggi ji fenn ci ay tubaab mbaa mbaa mbaa ci ay naar waaye sëñ Saliou tëraloon na loo xamante ni kenn du niil ba ci gone ga gën a tuuti ba ci mbay bool bi ku ñuy wax mbay bool nga xamante ne moo war a toppatoo bool yi léegi dañ koy lijjanti waat si amee nag jëwriñ ci daara ji ñaar fukki jëwriñ ak ñeent yëpp ñaar fukki néegi ñeent yëpp néeg bu ne am jëwriñ jëwriñ dina am topp jëwriñ noonu lay amaat beneen jëwriñ boo xam ne nag day généraliste daal yëpp rek yëlifandoo daal yëpp mu daan waxit ni saaga jërul dóor kenn saaga jërul dóor kenn bu dee gone boo ko mënta muñ nga fay waaye jërul dóor nam daan rek la it am ci diggante nit ñi mooy ki duma gone du la woo di la duma mbaa ñu di la dumal waaye dañuy woo dañuy woo ba nga ñëw bu ñu xamee ne yaa ngi ko tooñ ñu wax ba ni di ko fayal mu fay mu jeex ku nekk mooy fayal boppam kenn du ko fayal. kon loolu mooy xeetu bi mu daan tarbiya la ca des mooy yar biñ soxla teggin yi ñu soxla ci am murit yar boobu yi ku ci yaru da nga am ab yar da nga teggin su déggante sa jëmmi bopp sa jëmmi bopp nga jëkk respecté teggin sa digante ak sëriñ bi ci bop teggin sa digante ak sa borom teggin sa digante ak sa mbokki julit sa mbokki dara teggin it sa digante ak nit ñëpp non non la yar yar bi day day mat day mat sëkk nit nag ni muy tegginoo digante mo bopam moy nit dafa melni sal ab sal sal bi Tandra ëmb tàndarma gi tàndarma gi ci lay génne ko nak moy deggu deggu nit bu bëggee respecté boppam bu bëggee am ay teggin diggante ak boppam day dëggu la muy day dëggu nit li ñuy bañ ci moom mooy kenn forcé la ci dara nga ñëw waxal ko sa bopp te waxoo dëgg boole ci waxal sa bopp nangam ba noppi di fen lu ko jar kon nit ki boppam lay jëkk a ci dëggu dëggu lañ soxla ci nit ki imaam Charan day wax nag ne dëggu googu nag boo amee ci xolub xolub murit bi mu dëggu ci tarixa bi mu nekk dana dem ba dëgg googu day fël tasaaroo ci ay dëkkandoom bañ di ci jariñu mu tasaaroo ci quartier bi mu nekk bañ di ci jariñu mu tasaaroo ci dëkk bi mu nekk ba di ci jariñu mu tasaaroo ci nekk ba ci réew bi mu nekk ba ci àdduna bépp mën ñoo dem bay jariñu ci dëggub murit boobu waxu dëggub waaye bu fekkee li muy wax dëgg yi nag noonu la fenoo di génne tasaaroo ba lor ñim dendal lor ab dëkkam lor région lor waa réewam lor àdduna moo tax dëggu gi moo moom ngay dëggal pour respect sa bopp ba ca des mooy sa digganteeg sëriñ bi teggin yi ci war la ci jëkk mooy ak cofeel nga bëgg waaye bëgg it nag dafay taqoo ak nga nangoo topp ay ndigalam bàyyi ay moom la sëriñ bi wax ni sifaatu di muridi bi ixtisaar arbaatun nadamtuha xaw faxtira asidqu fi mahabati cheikh abat sumum sallu amri mooy da nga koy bëgg waaye nag fu ndigal di jógee nga topp ko nga topp ndigal kon bokk na ci dëggu diggante nit ki ak sëriñ bi mu jikko jikko yoo xam ni ku ko gis dana xeemeem yarub sëriñ bi waaye nag bokk na ci ñàkk ay tegg digg sëñ sëñ bi melokaan woo xam ne ku la gis jàpp ni dañ laa yara yarin yarin tegul ci yoon bi fokk nga yaru fokk nga baax ba buñ la nattoo nga muñ ko boo ëppee doole jégal ko di suuf sépp di ko dundal ci saw yaram sa xol nga di ko dundal asamaan si nga dundale ko ci sa xol di nëbb sa mer di joxe lu la nit gën a bëgg nga bàyyi ko ko jikko yooyu ko sax jàmbul bokk na ci tàggee yi ñu war a doxee digganteem ak sëriñ bi digganteem ak nit ñëpp sax rawatina sëriñ bi mooy bale ngaa dugg nga diisoo nga yëglu sëriñ bay jaaxat nen mu dëdd waaxu ni jollay fekk ab sëriñam fi as mbirab soo ko kenn woowul di xoole ni mbal ñu xoñante di xool ñun loolu tegul fenn bu loolu jàllee nga teggeenu sa digganteeg sa mbokki taalibe loolu sëñ bi sëñ mag bi daf ko tënk ci ñetti benn bi ñaari bi tarixatul adabi rahmatu saxiir kal abi wal ummi wa tawxiirul kabir wa jaaxlu mislika ka nafsika sawa da ngay yërëm gone ba mel ni yaa ko jur mag bi nga wekk ko ba mel ni moo la jur sa moroom mën nga jàppe kon sa jëmmi bopp bokk na ci nag jàppee sa moroom mu ne sa jëmi bopp suturaal leen seeni ayib ak rafet njort ci ñoom ndax eh, boroom xam-xam te sofi dañuy wax ne képp ku ku xam ku xam benn ayib mbokkum jullit ak donte dañ la koo kasfu sax dañ laa kasfu ba nga xam ko sax na nga xam ne kasfu boobu seetaan la ko jox waaye doonatul kasfu kasfu bu jóge ci yàlla ayib bi jullit ku ko la jaare sax kasfu boobu kasfu seetaan la kasfun seetaan yi yun la loolu daa ma taxam kas fu bala woon ayé bi jullit kas fu boobu ci seetaan la bàyyi ko jógewul ci yàlla moo tax yonent bi dafa wax ne képp koo xam day lijjanti ayé bi nit ñi kuy topp awra nit ñi suñu borom dana lijjanti sa awra te bu ko defee bu ko toppatoo rek dana la gàcceel Xasan Basir daan wax ni fekk nañ mbooloo mu baax moo xam di amuñu ay ayib waaye bañ demee ba tàmbalee gëstu ayib nit ñi leen yàlla defal ay ayib ba kenn du ko natt bi bokk na ci teggini murit ak morom ja sëñ bi daal ko jàngale feeñ na nag ci donge sëñ Saliou lu bari bari mooy solidarité muy bennoo lu nit am bokk ak morom ja lu nit yëg ñu yëgle ko ko gis naa donge yi dañuy am habitude ku ci am ngénte ñoom ñëpp dañuy def solidarité tàkkatu ngeen jàppale ko ci ba ci sax doxee ak sax ñoom ñoo koy doxal danañ dem sax ba mel ni raw ñu bokk ndey ak baay te façon yar boobu mu leen yar moo ko waral muy muy jàppalante waaye nag yar boobu nag nga jëflante ko ak mboolem nit ñi ndax bu fekkee da nga yaru si digganteeg sëñ bi yaru si digganteeg mbokk sa digganteeg sa mbokk caal bi te kenn koo gis yarade ko si yarade moom day mujj mel ni kon sëñ bi la doon yar ngir jëmmam mbaa mu di la yar ngir waaye yaru la ngir àdduna sëñ bi la doon yar ngir moo tax jikko jooju liñ bëgg nga di ko jëflante ñëpp pour wane yoonu murit wane yarub sëñ bi leen liggéeyal loo mën nga def ko comme ni ko sëñ bi wax sëñ bi dafa wax ne wa haysuma saahabta qawman fii safar fa kun muinahum ala kulli watar saaboo àndeek aw nit ci ab tukki da leen dimbale ci bépp aajo wax dum humu turran li wajhillahi ñoom ñëpp nga di leen liggéeyal nga jëm yàlla kon murit bu bu yar bi nekkee ci moom rek mbooloo murit mu nekk day jàpp ne mooy li war a liggéey mooy war a liggéey te bañ koo def ngir puukaréew kon li may daaneele mooy yar boobu nag bu matee nit kañ soxla danañ ko am nit koo xam ni day sukkandiku ci day wakkiirlu ci yàlla bu wér gëm yàlla di wakkiirlu ci moom waaye sukkandiku it ci pexey boppam ak liggéey ak yëngatu boppam li ko war ci société bopp mu di ko def dimbalante ak ay mbokkam ci àdduna ak ci diine ñeent yi saa bu yar bi matee rek danañ gis loolu ci nit ki ku gëm yàlla lay doon wakkee dugg ci moom waaye nit ku gëm boppam lay doon sukkandiku ci boppam nit kuy dimbalante ak ay mbokkam lay doon ci lu baax ci yiwu àdduna ak alaaxira waaye nit kuy participer lay doon ci société bi mu nekk kon loolu mooy li ñu bëggoon a li mbooloo mi di sant nag mbooloo mi ci rafet njortu gi ñu rafet njortu ci ñun di ñaan suñu borom yaakaar ji ñu amoon ci ñun ba dina woo suñu borom dëggal ko ba kàddu yëpp doon njariñ waaye di sant sëriñ xaadim mii nga xamante ne mooy jëwriñ ji mooy seen jëwriñ te mbooloo mi bi ñu soxlaa ma ñëw ci moom lañ ko jaar moom woon ñu ngi koy sant bu baax ci rafet rafetu jikko moom itam ndax diggante baayam ak sëriñ Saliou ñu bari xam nañ ko sëñ góor taxawaay boobu la taxaw diggante ba sëñ Cheikh sëñ Cheikh Moussa Sall ba sëñ Cheikh doyloo ko ba lu bari mu di ko def loo te bu melutoon noonu du du du demee noonu bu fekkoon ne ko jëm doy noonu waaw sëriñ Cheikh xam nañ ko tarbiya gi mu tarbiya xarul ba sëñ Cheikh bi jógee fi rek mu tàmbali tarbiya naka jekk daf ko doon def ba sëñ bi jógee fi mu jël lam ca mën a jël ñàmbaar ko ci lam ñàmbaar ko ci lam yoroon benn bi sax dañoo toog di waxtaan mu ni ma bu yàgg la toog mel ma ko murit mag ma ni ko man ni ko sëriñ Tuubaa ne woon na lenn képp la dese ci lu mu soxla mooy ku ko yaral dong gone yi gone yi gone yi murid yi ko ku leen yaral jàngal leen nee na boobu laa fas ci sama xol di la fas naa ci leen liggéey kon loolu day mel ni mbirum la mu ko def loo mu di ko def na ko ñëpp ñaanal mu yeggale ay yéeneem naa li mu am ci dine ak li sëñ Saliou naa doon lépp mu yegg leen ko